assalamualaikum Mala mamuska tey fii laa alliance mama dëgg neexul ñëw ak ci saint valentin <laughs> mode bu bes, style bu bes, greffage bu bes. Yen les amoureux ak les amoureux <laughs> xam nga da xew nak. c'est kone est daal <laughs> c'est que jigéen ñi góor ñi juste seeni mbir juste ñu <laughs> allo kooku puissance bu ma makkee rek nag tax nga may énervé daal damaa nekk ci kii communication daal <laughs> c'est qu'on léegi nag mbëggeel bi dañoo nekk ci weeru mbëggeel ba na ma leen di ñaaxat daal da gis koo xam ne day am cinq far am ku am cinq gel ba dix gel <laughs> te ñëpp nee benn mbëggeel la nag yéen garaaw de <laughs> Sénégal dafa neex nag da ngeen di sañ comme man rek jour Saint-Valentin nekk ci whatsapp bi koo bëgg rek jàkkaarloo moom ci whatsapp bi di whatsapp ak moom ca ba muy moom ëpp na style bu bees rek laa leen indiloon loon tey ki ko ne ok ki ma defaral nag daa ëppal de laay lay la États-Unis da la tupp een doom rekk fay na li taabul buy mag mag mag mag benn sponsor bi li laa am kañ ngeen di ñëw nag dëgg neexul dikk leen maa ngi nii li may jaay ñëpp a ko bëgg barki sëriñ Tubaa foo leen ne tamit xale baa ngi toog sama sëba macha allah siin la jóge na mu ma dara alliance 300 rek nga am ko dëgg neexul ëpp na kon bu ko defee rek <laughs> ma dem ba suba ma daal di revenir daal les choses comment faire ma wan leen samay cuus <laughs> fii de laa génn waaw na sañ sa nag <laughs> alhamdulilah rabbil alamin sama yaram bi sax daa daw tey ba ma sañ si monsieur le président nag baay maa woo Ablaye Wade dëgg neexul nag wàcc nga nag ci Saint-Valentin man bisu mbëggeel laay waxuma ci politique dimbali ma nag ah nga topp ma rek waxal waxal ak man mënumaa wax ak yow nag ah lu may waxati yow wàcc nga kañ li nga waroon faru faru nga ko wàcc nga kañ nag bàyyil xale yi euh, zibile du dëgg sama bëgg naa la loolu waaye dangaa war a def ndànk attention nag les choses xam nga rek yaa ma gën a xam daal déedéet jaru nga may jox Viviane jaru ko jaru ko li ma la wax nangu ko rek waaw kay gis naa Sonko sax wax ak naa moom xam nga moom tamit dafa xaw a yambar daal tamit ah na dëggal boppam rek affaire yi toj bisu mbëggee la dangay bëgganteeg population bi ñu jox sa carte ah non Macky moom aw ma benn problème waaye yow dangaa war a def naag màgg nga xaw ma am nga 60 ans xaw ma 70 ans loolu tamit dañ koy seetaat daal. te ma nag ci kàddu gi bu ma woowaat nag woo yu bëri yi moom bëgguma ko bëgg naa la lool waaye booy dem France doo ma woo pare topp ma di ma communiquer ak man nii rek moo ko bëgg ah. dangay waxa waxa wax ba maar ah, waaw mën naa wax ne heure bu ma waxee rek seetu man <laughs> eh. dangay jël appel ci kaw appel ci suuf kii kan la tamit kooku tur ba nag laa fàtte boroom kii tuddati sama sponsor bu mag bi oh tur ba tur ah, bu ma ko xamul ma bàyyi lu soos yi gën a dem rek may fàttaliku sa tur amul benn problème de. kii sponsor bi tamit du ma arrangé hmm? appel si kaw appel si suuf ci kone daal ah <laughs> moo moo yow dangaa baax laay laa kenn du yow kenn du yow de laay lay la laa ah ku ma maquillé nga may laaj <laughs> tey moom damaa sarmante moom c'est trop <laughs> jógewu fi marque la marque la li ma sol yëpp marque la jógewu fi yii man sponsor yu baax laa yore yu amul fenn dañuy fay barki yonent bi ay <laughs> la comme ndox ah <laughs> moom kañ kii bi cinquante mille la defar kanam cinquante mille la amul benn problème <sighs>